ISA la cuisine sénégalaise de Astou chaîne bu lay jàngal togg cosaan togg maam ànd ak jamono neexte sell duggal ci site bi di 3w point cuisa point fr wala nga dem ci chaîne YouTube bi di cuisine sénégalaise de Astou am na Facebook Instagram ak si Twitter da ngaa bëgg a sa borom kër sa njaboot wala say dëkkandoo ci ay plat yu neex waay ay plat yu amul benn bouillon amul benn artifice chaîne patriote bi nga xam ne la ko tax a jug nag mooy yóbbu culture culinaire sénégalaise ci biir adduna bi ñëpp te jàngal tamit xale yi ni maam daan toggee te du am bouillon te du am tam artifice affaire bi daal cuisa la seen pharmacie maam lamp faal yegg seeti na dee ak Serigne Assane Fall dëkk fan comico ca Géejawaay ay ci ndoxum siti lool hémorroïde ballonnement impuissance maanaam jafe-jafe ci wàllum sëy ak Serigne Assane Fall jaaxle kon jeex na di yëngu tamit ci wàllum ñaan ak mbirum gisaane di ko defee nag ca seetu ba ma ne wàllum ndoxu siti moo ca mën ku ca bëgg 234 57 03 soxna Roxee Dramé ne akarité bii nga xam ne baatin kese la àndal baax ci asma baax ci jabet ba ci ay yaram yuy mitti nag te diis Marie Rosaire beeru karité lañ ko liggéeyee ñu liggéeyee ci Afrique gi di faj nag ay jàngoro ay infection chronique ma ne waa lii ku ci bëgg nooy def xanaa woote ci 78 395 39 81 wala 78 592 51 51 mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen chaîne 2A TV la chaîne du peuple li ci yéene kaay yi ak El Hadj Ahmed Aïdara bismillah élection locale yi ah doy na waar leese ko yéene kaay ne Abdoulaye Wade waaw moom la waa wallu def nag seen de liste ci juróom fukki at ak juróom na yàlla xeb dolli amiin waa loolee Abdoulaye Wade ci boppam dogal bi ci moom la jugee wala dafa bëgg a dimbali doomam yii nga xam ne lànk nañ ne duñ màgg laa la wax waa PDS daal nee nañ duñ màgg waaye góor nag moo nekk ci biir xolu nit yi ne la yéene kaay gi ne gis nga nag wàllum investiture démocratique sénégalais 19e place kon la ko yóbbu liste nationale ba waaw nee na wan naa ginnaaw PDS Karim Wade day jàppale maa trahir ma yoroo wax lii waaw ndax nee li mu def ci ay sacrifice yëpp tey ñu yóbbu ko file Cheikh Mbacké Dolly waaw nee na parti démocratique sénégalais daf maa wor looloo tax sama diggante ak jeex na paaka la ma jam ci digg ginnaaw laa la wax nan lañ mën a indee Abdou Mbacké Dolly di ma ko imposé yéene kaay Cheikh Omar Ndaw bi ne yeewee askan wi ba démb waxoon nañ ne leen parce que Aïda Mbodj day mooy deuxième te liste nationale u Yewwi baax laas ne gis yi lé APR waaw dama ne mooy rey APR de mooy danger ba de mar de taali ah way gis nga Macky nekkul ne defar ay liste ak yooyee de moo ko cay génnee déedéet il faut nag mu lijjanti kanam googee ba nuppi waaye yow exemple élection locale yaa ngi ni la fee ca duwaanu Parcelles waaw ay Amadou Ba yoo Mbaye Ndiaye yoo député Badara Diouf oo wote lu waa APR waaw mais ñooñee ñoo sot Alioune Sall laa la wax ar day taali moo tax it dana fayu moo tax it gis nga élection ci Ndakaaru njaajël Joob waaw mais ñi nga xam ne ñoom ñoo farak Abdoulaye Diouf Sarr danañu sot Amadou Ba laa wax ar day taali bàyyi leen ba gaa yi tànn waa kër Abdoulaye Diouf Sarr kenn du votel APR laa wax terminé yéene kaa ne xoolal Mimi Touré ak Macky Sall waaw Maram ak lu dolloo fukki atu yàlla la ñu ànd laa alxuraan la du ñu ànd te du ñu tàggaloo yéene kaay dee média gi ne maire yi nga xam ne la ñu jugee dem ca Macky Sall waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo la ñu wor électeurs yi la maire trahir looloo tax nag gis nga ba électeurs yooyee ñu ngi di xaar rek liñ naan jam ñaajo laa lay xaar nit ñaa ngi leen mere mere koo xam ne maar day taal critique yéene kaay ne yow xanaa xamoo ne nekk député waaw ay dóor maato la naxaate que ne gis nga assemblée nationale bu ñëw nuroog sa morom dama ne la assemblée nationale yëpp a nuroo intérêt parti ba moo la fay teg alerte yéene kaay gis nga tëddee liste bi lee Mimi Touré Benno Bokk Yaakaar waaw ginnaaw Abdoulaye Wade Macky Sall day yóbbu na nag Moustapha Niass retraite maa la ko wax sur quotidien ne élection député 2022 yi lée waaw gis nga alliance bi yeewi ak wàllu waaw war a dal ci kaw Macky Sall opposition bi day le coup kaw dóoru Macky Sall nee na boo xoolee ni ñu tegee seen coalition bi lée yeewi ak wàllu ah naan mënta ne mais mën naa de parce que ne coalition bu ca ne loo ñàkk fii mën nga koo am fa ca des département ak national les fa yéene kaay dama ne gis nga yeewi ak wàllu day nga xam ne gaañaa nga ca ah mbir mi la daal bis bu sotee mooy Benno Bokk Yaakaar seen bakkan nañ ca xootu gerte ar di Italie waaw parce que lu tolloo fanweer ak juróom benn ci ay département waaw yeewi askan wi moo koy jiite waa wàllu day jiite fa ca des ci département yi la waaw Macky Sall kay ci nii ak ne dana defaraat toogaayam laa la wax par force direct news de dëgg la gis nga ak wàllu bii ah boo sàgganee rek ñu dukkil jamono laa la wax ah, ah, ah oui parce que ginnaaw élection locale yi 2022 ah nga xam ne yeewee askan wi day lu tolloog 600000 voix la ñu am laa la wax ëpp na genn wàllu million waaw parti démocratique sénégalais kese ñaari coalition Wallu ànd ak Yewwi ci 28 département stratégie la boo xam ne mësta am ini di te gis nga gars la leen daloon ca waaw mais loolee la bañ mu dalaat leen planté ca faal bi é pdf dox na de lool Yewwi Wallu dëkkandoo ba lañ bëgg cohabitation cohabitation ak waa Benno Walfadjri ne dama la Yewwi kay ak Wallu fu ñu àndee fu ne waaw mais mën nañoo rey waa Benno Bokk Yaakaar laa la wax une alliance qui peut faire mal dëgg la te gis nga Dagana Kolda Vélingara Louga Linguère Kaolack Sédhiou Goudomp Kédougou Kaffrine Koungheul Tambacounda Goudiri Bambey Ranérou ak Matam ñu ne waa wàllu day ñooy jiite Pikine Foundiougne Gossas Podor Médina Yoro Foulah Kébémer Guinguinéo Nioro Bounkiling Salémata Saraya Malémodar Mbirkilaan Koumpentoum Bakel Diourbel Mbacké ak Kanel Abdou Khadre Sanogo nee na gis nga opposition bi lée bu ñu bennoo waaw danañ booloo nekk benn de ci nii mbaa ci ne source aane ànd yeewee te a Qatar gi nga xam ni foofee la nekk day moo négocié Ousmane Sonko ak ñamu àndal Mamadou Lamine Thiam bu PDS a Khalifa Babacar Sall daal di mujjee signé nag dimanche ca guddi accord yi daal mooy fukki ne kee jàppale ko ca bu kee ne kële jàppale ko ca waa Bougane Gueye Dany mi bopp waaw lan moo tax ba mënta juboo ak kenn moo jaaxal ñëpp source aané juboowul ak waa kër Abdoulaye Wade ya ci waxtaan juboowul ak Thierno Alassane Sall juboowul ak Abdourahmane Diouf dama ne Kalidou de moo politiciens yi mburu foofu ko fëriñ laa la wax ñoo yem looloo tax ba man Kalidou Niass tey tekki naa sama ndomba tànk bàyyi naa l'observateur ne xibaar am na de xibaar am na de am na ñeenti liste yoo xam ne day parrainage yi waaw bloqué nañu leen de maar day taali dama ne la ànd nawle ànd liggéey bu sëriñ bu kale nañ ko ci parrainage yi maar di du bokk ci élection yi di defar sa gox Adama Faye bloqué nañ ko ci parrainage yi dama ne la sëriñ bu Fadel Baro bugaan gay dani parrainage si lée duñ bokk ci élection yi <laughs> cay lii le témoin yéene kaa ne xoolal yow ca jamono joo xam ne président de la république day waaw ma ngay diggee ne dañuy tabaxaat nag hôpital bi Aristide Le Dantec waaw am na ci ay tan ay vautour indien yoo xam ne nag ña ngay rëbb lu tolloog cent cinquante milliards ca wàllum suuf sa la de li nga xam ne ñoom ñooy dawal DER bi day dañ leen a dagg de ci biir àllu mbaaw boobu maar day taal dama ne la ñoom mu ndagaa si APIX nee nañ danañu plainte parce que lii wàllum sabotage la te ña ko def kat waaw ay kiri criminel lañ mën nañ rey nit de les fa yéene kaay ne ministre Omar Gueye waaw nee gis nga capitaine Touré ak Guy Marius Sagna duñu fi amee kay te duñ fi fayeeku tamit weeru dee salaire le quotidien yéene kaay ne may ma acte de vandalisme bi nga xam ne moom la ñu gis ci teer gii mardi tali ay fiil yoo xam ne diggante Kër Mbay Faal ak yëmbal tax na ba wàllu dem geeg dikk gi day am ay jafe-jafe moo tax waa APEX si nee nañ dinañ ala xam contre ah, la dem naa Malick Thiandoum waaw ci suñu laam nee na Sa Thiès nii rëg-rëg nekkee nii la bëgg a dakkal de rëg-rëg la bëgg a daan de dana mitti nag <laughs> waaye daan rëg-rëg de ak lu mu mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti Macky Sall daal na xam ne politique du métier suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi daree rek boo paree sama waa ji mën a la tëjal jërëjëf El Hadj Ahmed Aïdara mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen dig daje ëllëg ci seen chaîne 2A la chaîne du peuple ak El Hadj Ahmed Aïdara